dañuy dem ci euh, société ànd ci ak Maimouna Ndiaye xam ngeen ne bi info du matin tàmbalee ci leen tàmbalee euh, gunge ci lu jëm ci wàllum société tey itam mu def ab euh, taxaw seetlu ci euh, ñi caabi féete ginnaaw noonu la may ginnaaw bi ñu la nuyoo nuyuwaatee la lay wax sax dala la ci info du matin. nuyuwaat lay doon soxna Faty maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ñi mu bokkal plateau bi jaawoo. Euh, Chérif Dia mën a tooñ Aminata Mare Sow borom éducation mhm. euh, di rafetlu ànd ak yéen tey jii ci suba mhm. euh, ni nga ko waxee noonu la mhm. ñi nga xam ne foofu caabi daf leen a féetee ginnaaw te lu ci bari dañuy naan erreur judiciaire moo ci am wala yu ñu demee noonu gëstu daal la def ci ñoom ana seen ëllëg ak seen nekkin ñu dem xool élément bi dellu siwaat gën cee mën a yaatal waxtaan ci diiru ñeenti at caabi féete ko ginnaaw nekk soxna ñu tuumaal la trafic de drogue muy lu tiis li ci gën a métti ñu àtte ko ne léegi toppeetuñ la dara. toog benn jour rek gendarmerie ñoo débarqué sama kër voilà noonu la demee woon par la suite après ñëw sama kër fuyee gis gisuñu fa dara léegi xekkoon euh, nañ la ci man xaalis mais xaalis boobu 500000 loon mais 250 la ñu bind te xaalis boobu fekkoon juste. ñu joxoon ma ko muy xaas boo xamee ni dañ ko joxoon ma woon préparé sama kiiwu doom yi. man jusqu'à présent dama naan lan moo nekk sama ginnaaw problème lan moo ci nekk loo xam yëguma ko te ñoom ñu def enquête yi xam ko te man ma lan la. ci jamono bi ñu koy jàpp ci atum 2014 la woon mu yoroon restaurant bu mag teg ci bu boutique boo xam ne day jaay ñam fi mu toll nii nag loole lépp dafa yàqu. fekk naa ñu tëj ko. ba léegi maa ngi ci demanteeg yoon sotteegul xam nga balaa ngay amaat temps bu reprendre at bagage fa nekk ko matériel te famille éducation bi nga defoon say donc xale yi xaw nañu màgg parce fekkee ne ki sama caat bi nga amoon ay 4 ans dem ba am 8 ans dina euh, xam ne du ma da nga jubbantiwaat. bu fekkee awa moom nee na dañu ko tuumaal Pape Mamour moom def na wante ci juróom benn at ak yu lu li mu tëdd ñett képp la waroon na tëdd kaso. sama benn copine laa sama copine bi am benn xale bu jigen bu ne da koy abal yere lu yóbbu si néegu góor kooku kokku ko jéem a violé si la mom dem fekk xala bu jigen bi kërëm xex ak mom jàppante ak mom génnee fa ay arme gañ fa nit moo tax ñu tëj na kasso le le huit août lañ ma bay waaw ma taxaw ñu ñëw na ma bay nañ la jël say bagage ma jël sama bagage génn dem sama yana ah. mais niñ mako ko non lañ ko defee sama morom yu bari jàpp bu jéggi dayo di laaj bay wante ba légui ñom ñaar ñi ño bokk yam gisaguñu dara jotaguma dara te top moko sax te aw ma jot bobu man ak samay morom ni ci topp tey bu jeex jeex système mandat de dépôt ñoo baax. am na préjudice boo xam ne kenn mënu la ko délo muy le préjudice moral xaalis dang kay yak yor peut-être mën na faj say besoins pour un temps xawma xaw ñaata la mais préjudice moral moy li nga xamé ni. du procureur moo koy delloowaat nit ki du gendarme yàlla jàpp wax la ñuy wax te xam ne dañoo sos tey wala policier bi wala keneen ka la sol moo ko la joxañ mooy ñëw tey demaat société bi di la ko bu ñu sañoon nag kilifa yi ñu dénk wàllu yoon dinañu gën a sëgg ci bile jafe-jafe ndax tey jii lor na ñu bari. ñoom à leur niveau xam nañ ñaata nit la ñu acquitté donc ñoom su fekkee indemnisation on avait même pas besoin ngay demaat ci avocat wala keneen ke di ci toppaat wala ñu di déposé. nekk na loo xamante ne wax dëgg neex yàlla président Macky Sall ñu ciy yàlla je crois ah. parce que café bi ngay gis nii si sa mandat dépôt yi il faut nga def cinq ans wala six ans nga war a taxaw ñu atte la te nit ki tant que attewuñ la tu n'es pas coupable soxna Awa fi mu toll nii mi ngi yëngatu ci wàllum jur gi ngir dundal juróomi bant yi ko yàlla jox Mamour itam mi ngi bay waaram di jàppale ñi nga xam ni caabi daf leen a féete woon ginnaaw ngir ñu bañ leen a beddi wante bu ñu sañoon ñu gën leen a taxawu Maimouna Ndiaye mën nañ ne sax exclusivité nga am ndax yombul ah. ku def tëdd kaso ba pare nangu indi témoignage am ñëpp di ko gis vraiment euh, bravo def nga liggéey bu am solo may. Euh, ni nga ko waxee soxna Fatou yombul woon parce que mm-hmm. ci semaine bi yëpp ñu ngi leen di topp seen ginnaaw. Mm-hmm. Euh, ngir ñu def témoignage xam nga rek ak télévision bi du yomb. Mm-hmm. mais finalement wax nañ ci parce que dañoo jàpp ni ñoom dañ leen a tooñ. indemnisation loolu xamuñu ci dara te moo ne de am na commission boo xam ne teg nañ ko fi de depuis 2017. commission baa ngi ciy liggéey mais ñàkk xam. moo tax moo leen yóbbee lii te am na ñoo xam ni peut-être bokkuñu ci xamuñu lan moo tax ñu bokk ci. déjà euh, lool loolee lépp ay euh, jafe-jafe la. yoo xam ni ñoom souligné nañ ko te ñàkk xam bi ma wax rek. moo ci jiitu. Euh, gis nga ko ci element bi soxna si mi ngi koy wax neena même buñ la dampé aussi mhm. euh, li dam dem na mhm. ndax euh, gatché gi fay dess mhm. nit ñi dina xolé xoolee bobu ak yenen ak yenen yi mu andal pour nga duggaat du yomb c'est vrai que Sénégal société bi sax kaso la ndax bo xasse ba kasso ba paré ñom ñolay tej di ay yëkëti ay cadeau buñ ko waxé nak du ñëpp mais amna ño xamné aussi dañu doyna war metti stigmatisation bi moy bordi bi doyna war mo doxam bravo amay mëna ci liggéey bu am solo bi ah, soxna ci yank wax sank surtout jigéen euh, nga xamante ne moom moo def témoignage bi am na ñoo ko ñemee di def euh, témoignage euh, à visage découvert ci li nga xamante ni kon moom moo leen daloon parce que mooy moon ci li nga xamante ni mooy procédure yi ñu tëj la ci njuumte xëy suba bàyyi lañ Sénégal nag am na moom moo taxoon man laaj bi ko njëkk a laaj mooy critères maanaam ci yan anam lan leen mën a dàmpee ci ñi nga xamante ne yoon tegoon na leen loxo ñu dem rendre compte ni dañoo juumoon ci procédure ba bàyyi leen ñu ñibbi euh, déjà ci critères yi mën nañ cee lim maanaam bi ci njëkk mooy mhm. foog ñu juger la ba noppi mhm. foog ñu juger la wax la euh, non lieu nga am dañ laa relaxé wala acquittement nga am mhm. bu fekkee non lieu la ku ne xam na ni foofu ci juge d'instruction bi lay lay yem bu fekkee dañ la bàyyi euh, acquittement euh, foofu dossier criminel la ñuy wax maanaam mm-hmm. koo xam ne dañ ko tuumaal ni dafa def délit mën na doon nit mu jaaree fa faatu ñàkk bakkanam hmm. wala sax mu def détournement bu hmm. bu fekkee loolu la tamit euh, dañ ko fay classé mën na nekk tamit relax euh, bu ko defee dossier bi euh, correctionnel lay demee hmm. léegi nag problème yooyu Chérif comme ni nga ko waxee am na beneen beneen jafe-jafe boo xam ne mooy détention ci loi bi dañ na détention anormalement longue loolu tamit dafa jur jafe-jafe parce que boo waxee loolu déjà estimé wuñu ko waxuñu ci diiru ñaari at ci diiru ñetti at ken xamul ñom rek ñom ñoo xam ñi nga xam ni ñoo nekk ci commission bi fofu nak euh, leerul bu baax bu ñu sañon ñu xaw gëna xol parce que gaay yi ñu ngi ciy loru. 6 mm-hmm. euh, mois moy délai bi bo génné ñu jugé la ba 6 mois nga am pour dem ci commission bi euh, ñom ñi ngi cour suprême. xam nga 6 mois di bu gatt la bu fekkee xamoo comme soxna ci li nga dal. Mm-hmm. passé na 2014 lañ ko tëjoon 2018 la génn. Mm-hmm. bo ba légui 2018 ak légui 2020 la. mo mënatul bok loolu comme imperfection ci loi bi. ay imperfection comme ni nga ko waxee. imperfection mënu ci ñàkk 2017 lañ fi toog mais euh, bi ñu defee xayma daal saytu ko ak ñi nga xam ne ñoo yore droit de l'homme ku ci mm-hmm. demee ni maître Assane Dioma Ndiaye moom euh, dossier yu ni mel. da koy mm-hmm. topp di ko suivre moom it am na lu mu ci wax. Mm-hmm. li mu ñu wax rek mooy imperfection yu bari na ñu dem euh, seetaan lan la ñuy wax bu ñu ñëwee daal di gën a yaatal. mais ci audience ba ñu disqui disqualifié même bu ñu la condamné pour contravention ça né nañ mënoo bok ci euh mënoo am accès ci commission bi xam nga lool muy problème bo xamné ne seetuñu lan moo lal euh, sa déten longue détention mais dal il faut ñu sétal la wa nga am non-lieu ñaareel bi aussi diir bi ñu joxe pour nga mëna a dem ci commission bi dafa gatt xam nga 6 mois té léeg-léeg fii Sénégal ñu atté la balaa nga jot atté bi sax 6 mois yi jeex bu six mois yi da ngay donc muy ñaari yoo xam ne ba dem ci commission bi bëriwul te ñaareel boo amul avocat bu la taxaw wala organisation bu mel ni sénégalais ordinaire bi pour mu mun a dem ba cour suprême saisir commission problème la am problème information aussi ñu bëri ko question commission bi kenn Euh, encadré wuñ ko juges yi ñooy mujj di def ay appréciation ñaata la ñuy joxe amul benn barème bu ñu leen jox en matière de liberté si bien que daal liñ ci gis mooy indi na problème yu bëri ñun requête yu bëri yuñ dugal dañu nañu 6 mois yi passé na parce que nit ñi bi ñu ko déggee ñu bëri dañu def benn riche ñoo xam ne yàgg nañ leen a euh, jàpp ba bàyyi leen ñu ñëw defe ne mun nañ cee bokk ñun jéem nañ plaider pour am benn interprétation dynamique wane ne même bu fekkee 6 lañ leen may dañoo yéex a jot seen kayitu àtte mais foofu aussi commission bi danaan ay taxi moo ko régir mun ta wàcce taxi yi Maymuna mu ngi noonu maître Assane Diome Ndiaye daa mel ni tënk na ko. Ah, dafa mel ni tënk na ko soxna Faati gis nga li mu ko waxee rek. Ah, ngir ñu gën a yaatal ah, dafa mel ni ñàkk a leer googu dafa upp bopp nit ñi surtout ñi nga xam ni ñoom la loi bi tax a jug. parce que dañ ne dañuy réparer injustice li ko taxoon a jug mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ni dañoo tëdd tëdd bu jéggi dayoo. ñu war la ndàmpaay si ñoom mais boo seetloo daal ñàkk xam ñàkk xibaar yu wër. moo ci am ba fi toll ni ñom jaxasoo nañ xamuñu mhm. manam tay ji ko xamni dañ la da nga teud 10 ans ñu ñew daan lay juger condamner la 1 mois avec sursis mhm. kooku bu ñu demee tey jii euh, amoon ndàmpaay xam nga yu démé non mhm. dafa dafa dafa nek lo xamni injustice la ñu war ci gëna a sëgg donc euh, Maïmouna ni ko waxé ni euh, amna injustice bu installé wu amna également ben peut-être désinformation tey jii peut être ban tànk la ñu war a pour peut être euh, yoyé yépp ñi nga xam ils sont victimes de de ce problème ñu mën leen jël en charge. Mhm. déjà ban tànk ci ban tànk bi ngay wax euh, Amina euh, fofu dina laaj manam buñu défé jugement ba paré mhm. euh greffier bi nga xam mo togon ci audience ba mom mo xam lépp dossier bi mu top ko. bu ma sañoon man mhm. ci sama xalaat laay wax mhm. euh, dossier bi moom greffier bi nga xam ne moo am xibaar yu wér mhm. moom moo ko yóbbu jàllale ko Cour suprême ci commission bi bu ko defee moom mooy yombal euh, ndàmpaay gi nga xam ni euh, nit ki li mu yelloo dinañ ko ko jox te mu nekk loo xam ni duñ ko lor mais nag bu fekkee ni moom mooy yëg ak a wàcc xamu ci dara fii dañ naan nul n'est censé ignorer la loi te boo seetloo ba ci biir ñi nga xam ne xam nañ seen yoon yoon lan la leen may lu neew la ci lim bu neew lañ toll kon nak euh, lañ na daal ñu gëna chambar gëstu gëstuwaat ndax amna lu bari lu ñu war a jubbanti même na li doyalu ñu xamna ni dañ ko waroon def première partie def ko deuxième partie parce que amna ay faiblesse ak yoy yëpp yu ñu warona a mais malheureusement 7h30 mo jot dañu wax dem ci li ci yene kay yi euh, xana ñu dig dajé Amina euh, Maymuna mardi mercredi prochain inshallah man lundi prochain allah lundi prochain waaw may mercredi allah mercredi ci société comme ni ko waxee rek xam nit ñi doyaluñu parce que mm-hmm. pàcc bu yaala mm-hmm. euh, euh, ñu bëri bëgg nañoo xam mais nag euh, ñu seen loolu la ko Lamine wala <laughs>